waaw yaa ngi doon junj accident yi. waaw waaw mu metti lool te tiis euh, tey ci suba ci boor yu 11h. Euh, mhm. dañu nemmeeku daal fële ci yoonu Louga bi euh, ci boor yi Ndànd. Mhm. nee nañu ab camion daal moo fa daal di def collision ak benn minibus bu yaboon ay nit ba ñu wax ne lu toll ci fukki nit ak benn jot nañ ci ñàkk seen bakkan nee nañu nag am na juróom-ñeenti nit yoo xam ne ni. bari ci ay gaañu gaañu yu métti métti la ñu nekk ba daal di nañu leen di rawale fële ca hôpital régional bu Louga mu nekk nag tiis woo xam ne ni euh, semaine passée itam wax nañ ni sax fële ca boori Matam euh, ci julumaa ji ñoom itam mm-hmm. euh, am na ñemeku nañ fa ab accident boo xamante ni nii ñi fa mm-hmm. ñàkk seen bakkan xaw na takku ci aw lim mu nekk lu doy waar doy mm-hmm. waar Omar Bun Xataab daal dafa mel ni accident yi mi ngi wéy di tàmbali ba tey kenn xamul ndax chauffeur si la wala ñi nga xamante ni nii ñoom ñoo euh, tali bu baaxul bi la kenn comprendre wul daal doy na waar. déjà di masawu waaw ñi loru ci accident bi ak ñi ci amee ay gaañu gaañu waaw accident moom bu amee tiis la te métti la. parce que li muy bette la mais aussi tamit di jur yaakaar bu tas. ci ñoo xam ne danoo jàppoon yoon du ñàkk ni. jël nañu téléphone woo seen i mbokk na leen ñi ngi ñëw. Mm-hmm. mujj ñoo yegg si wala bu ñuy yegg si duñu indaale bakkan mhm. wala lor gu bari am ci loolu yaakaar bu tas la mhm. loolu nag di bari ci nu réew yi di fi bari di am di amaat te amul solution mhm. léegi déjà mun na doon dégâts matériels mun na doon dégâts boo xam ne nit a koy def mooy chauffeur yi dañ ci am wàll surcharge mun na ci ne mais aussi tamit euh, oto yi ak qualité bi muy am ci oto bu baaxul ak wala oto bu surcharge loolu lépp mën na indi accident ak yoon yi ñuy jaar. léegi nag loolu. ñu ngi koy jooy mais pexe bi. loolu lan war a lii lan mooy solution pour régler loolu mm. parce que ñun ñu bari ci ñun mm. accident yi bi bay bari ba ñu bari jàpp ni lu normal la da ngay dem ba am sax ñu ragalu tukki mm-hmm. maa xam ne bu ñu waree tukki yi dañuy fanaanu stress du nelaw mm. ndax ñu suñu yoon yi mel loolu nag moo ñu yóbbu ci ni mbir yi dafa war a weesu ndakaaru génn infrastructure yi ñuy defar ñun am na TER am nañ BRT am na deux fois deux voies am na veden bi yooyu yëpp am nañ ko pourquoi nin def ndakaaru ba mu mel ni mel nii ba yenn dégâts doo fi dégg wala bu dee am dégâts yi minimum lay doon duñ ko def yeneen dëkk yi kon tey jii li ñu war a def mooy keroog maa ngi dégg El Malick di ko wax pour man loolu solution la pour maytu accident yi bu weesoo chauffeurs yi surcharge oto yeeg yëpp mais ñu fexe ba tali yi yi ñuy génnee dakaar yi nekk ci biti doon tali yi yaatu li nga booy génn nii ak foo mën a dem booy dem Kaolack wala ngay dem Ndar wala ngay dem feneen ak feneen da ngay sentir ni tali dañoo xat ñaari oto bu benn di ñëw benn di génn mais presque bu nu xoolantewul rek mën nañu laalante wala kenn ki di maytu. kenn ki ba xalangu mhm. korog El Malick wax na ko nee na dinañ fexe ba def ay deux fois deux voies ci yenn ci tali partout tali dafa xat pour man loolu solution la mhm. surtout jamonoy nawet aussi dem beneen solution ñu xool état wu yi mhm. parce que lii nawet aussi du noor parce que tali bi day tooy te loolu mun na jur fitna kon lu nu war a taxaw la parce que ñun danoo dem ba jàpp ni dee nit ki mën na xëy rek faatu ni ni maanaam ñun dafa yomb ci ñun trop alors que nit ki li tax mu war a faatu ginnaaw dogal suñu borom lu rëy la war a doon mais fii chaque jour dund nañ ko Matam Croc dundaat nañ ko tey bi fi Macky di nekk ñu ngi koy dund ba tey amuñu ci pexe. Mm-hmm. léegi nag toogee ko waxtaanee ko. nguur gi tamit parce que Croc maa ngi dégg El Malick mu ne am na code de la route bu bees bu nguuru Macky sàll defaroon mais daf leen tooñ sax mu a sax amuñu woon courage yu génnee ko courage boobu nag ñu manqué woon parce que tabaski bi danoo jàngal ni transport lu ñu war a organiser la ay chauffeurs yu baax indi oto yu baax mais dem nañ tabaski ba ñëw ak Dakar dem dikk li nga dégg déggoo ko. mooy wane ni kon ci oto yi la ak ñi koy dawal. kon tabaski bi wan na yoon. ci ban pexe leen war a jaar pour régler transport Sénégal. léegi nag ginnaaw bu ma sowoo ñëpp nguur gi am fulaak fayda rek ba lobby chauffeur yi nekk Sénégal fii am doole loolu xam na lu nguur jàpp ñu nu ko bàyyi. Mm. nguur gi am courage yu jàkkaarloog ñoom teg li muy teg. parce que fii moom bakkan dafa mel ne. bu demee lu normal la alors ko warul demee noonu. Mm-hmm. en tout cas doy na waar sooy bu mm-hmm. Omar mi ngi koy wax à chaque fois da nga naan gis bu ñu jëlee ay mesures bi ci mujj ci accident bi amoon mm, temps yi la si ginnaaw ba Mansour Faye euh, jëloon benn daanaka lu toll ci vingt deux mesures mm-hmm. mais dafa mel ni fi ndul nii chauffeur si dañ ko xëtt mooy waral parfois yenn accident yi mënagul fexe ba léegi nii wàññeeku. waaw jërëjëf ma jigéen ginnaaw bi ñu ñaanalee ñi faatu yàlla yërëm leen xare leen ko aljanna ñi nga xam ne itam ñoo ci am ay gaañu gaañu yàlla daal di di defal ay saafara. Mm-hmm. Euh, su ma juum nag defe naa waxaguñu cause bi euh, dañu dañoo daje camion ak waaw man nag jàpp naa ne affaire yi ñetti rek la yoo xam ne buñ ko buñ ko sàmmanteeg moom Omar laal na benn bi muy. ndogalu mm-hmm. yàlla ndogalu yàlla nag dana ci ñëw muy comme lu mel ni la danoon Cheikh Amar yor sa oto bu bees tàq lépp bu baax. mais pono jékki-jékki romb la oto ba xalangu loolu xam kenn mënu ci dara loolu ndogalu yàlla la loolu day am organes yi baaxul xamoo ci dara sa pono toj na yooyu yëpp itam ndogul day dugg ci ndogalu yàlla loolu moom kenn mënu ci dara mais dafa am yoo xam ne leen li nit ki la bi ci des état moo koy def muy li rakki Gris Bordeaux jox ma magam ji ñu invité woon fii keroog li mu doon souligné muy dangay ngay jaar ci àll bi sa yaram dafay daw da ngay jaar ci suuf gis tali bu nga gis àll bu yaatu kooku da nga naan léegi ki ñëwoon doon defar lu ko teree def deux voies loolu dangay ngay poser question parce que tali boo xam ne benn oto fa war a jaar bu dee benn camion mu nit mënta jaar ci beneen bi même boo ci jaaree sax yow il faut nga wàcc benn pneu. léegi loolu responsabilité état la boo xoolee ma jigéen accident bi fi mu amee bu ñu la wanee tali yi. Mhm. tali yu xat lay doon. Mhm. yu ndaw loolu nag dama jàpp ni ak ñii di fi ñëw xëy na dinañ ci jël ay matuwaay mais gis nga nit ñi kenn mënu leen a yar ni leen dawalee leen nii defee leen ko nii leen ko nangam nit kay bëgg boppam exemple man sama sama cas laa koy jël samedi passé euh, ajjuma. damay dem weekend ma dem ba Thiès ma ma génn Thiès xam ni gëmmentu naa euh, guddi na parce que mënumaa jaar xombal yee samay mbokk Bambey fi des ma dem ba ci station bi ma gaare tëral sama bangu oto régler sama réveil 5 heures du matin moo tax suñu waa kër bi ñu ñëwee bët seet lañ ma fa gis 6 heures 7 ñun ma yow lu tax nga ñëw heure bii man leen damaa biddan fekk la ko waral mooy damaa dawal ba Bambey xam ne man mii mënatumaa dawal mhm. gëmmentu naa mhm. ma dugg ci biir station tëral sama ban watu nelaw ba cinq heures mhm. ma jógaat dawal dem léegi bu fekkee nit ñi nit ki day gëmmentu sonn di débrouiller wala ngay jël lu lay calmer pour nga mën a dawal gëmmentu nga ne wax sa waay jox ma foofu benn nàngam nga jël ko dawal mais après ak coono yooyu di ñëw ci yow à tout moment nelaw moom doo xam fan lay jógee kon dama jàpp ni eh, ñetti responsabilité benn bi ndogalu yàlla kenn mënu ci dara li ci des nit ki la na fexe jël ay matuwaayam mm-hmm. li ci des état na fexe xool tali yi ak it eh, eh, ñuy ñuy contrôler yi rawatina boo demee visite technique am na oto yoo xam dalay romb nga di kii fan la jaar ba am visite technique yooyu itam responsabilité état la nañ ciy jóg rek ñu xam ni mm-hmm. itam bakkan dafa fort mm-hmm. accident nag a a ajaratu dégg nga son yi bu lu mu wax bariwul nag ngay gis chauffeur su koy def en général accident yu bëri boo ko déggee ñu ne chauffeur ba da doon nelaw daa sonnoon daa gëmmentu mm-hmm. ba faa it nga gis ci euh, kaw tali bi yenn mbir yoo xamante ne nii euh, du discipline mooy mm-hmm. causé yenn accident yi waaw du discipline d'ailleurs euh, Matar fay loolu la wax euh, mooy euh, le directeur exécutif de la prévention routière du Sénégal mm. moom loolu la wax parce que nee na d'après les premières informations affaire mbirum comportement daf ci daf ci posé bu baax a baax a baax waaw Euh, et puis nee na aussi euh, daf ci am kenn koo xamante ni amoon na benn dépassement défectueux boo xamante ni yooyu moo causé collision bi ci minicar bi camion bi lu ñu ci mënti wax li koy li koy li koy liy régler mbir mi c'est toute chaine chaîne déjà waxoon nañ fi yenn oto yi guddi la ñuy daw nga dem visite technique oto dalay romb nga ne lii ndax am na visite technique et puis vitesse aussi ñu limité ko. gis nga gis nga da ngay da ngay daw ci tali bi omara a nga koy wax ni ñu bari dañuy ragal tukki man bokk naa ci. man su ma waree tukki damay tiit. mais da parce que da ngay gis loo xam ni yow boo daaree yoon it keneen du jaar yoon def yëfu dof dof lom ba indi fa musiba. da ngay xool li ñu wax rek nee nañu euh, techniquement est-ce que oto ya baax na. te pourtant am nañu visite technique. dangay gis koo xam ne dañ lay dàq pour lu ndaw am koo xam ne da lay romb leer ni kii warul jàll ñu jox ko technique. kon c'est tout une chaine permis yi aussi ñu xool octroi wu permis yi man jeune ne pas yan critères lañ ci war a dugalaat ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni dinañu permettre au moins ñu sécuriser tali bi sécuriser tali bi nag li ma wax la c'est toute une du permis ba ba ba ca dawal ba donc loolu yëpp dañ ko war a dañ ko war a xoolaat ministère du transport war nañ ci wax parce que maa ngi déggoon ñu naan dootu ñu fi octroyé dafa ñuy xoolaat octroi permis yi waaye dinañ xoolaat également xam nga permis comportement nit ki da cee war a bokk c'est vrai que ni on me dira ni nit ki bu ñëwee di wut permis dawal wàcce yéegal nangam kenn mënu cee juger nit mais am na loo xamante ni quitte à que ñu laajte ci certificat de bonne vie et mœurs wala leneen ak leneen am na ñoo xamante ni mooy loolu ah ñi am permis te mos ñoo ñu mosul dawal ñu mosul dawal yor ah, permis ah, waaw waaw loolu yooyu yëpp da ciy bokk <laughs> waaw en tout cas daal war nañ ko xoolaat léegi xam naa góor xuma léegi mu jóg euh, kaasal leen ndax moom moom kenn du laal chauffeur yi mais war na waxtaan ak njabootam bi bu baax a baax. waaw waaw waaw. yi maa ngi koy wax son bu léegi chauffeur yi daal daanaka mesures yi ñu jëloon yëpp xëtt nañ ko. léegi en plus ñu ngi wax ci euh, visite technique yi euh, ak ñi ñuy romb ñi nga xam ne ni ñoom ñooy taxaw ci kaw tali yi pour di saytu oto yi jàll ak yi dul jàll est-ce que euh, tam liggéey bi ci war mu ngi ci am. waaw xam nga Sénégal li ñuy expliquer moom wax dëgg fa yàlla boo xoolee loolu bokk na ci li nga xamante ni bi mooy yi indi jafe-jafe yi indi jafe-jafe ci wàllu accident. d'abord formation yi ci la. ni ñu leen di former pour ñu xam nga fii ñi nga xamante ni ñooy gën a yeb nit formation bi ñuy am. Euh, apprenti ngay moo gën a garaaw. Mhm. formation bu garaaw la ñuy nekk boo xamante ni bi moom noonu lañu leen di former quoi mi ñu leen di former dañ leen di former ci ay pas yoo xam ne ñooy toog. Mhm. di expliquer seeni jaloore. di wax loo xamante ni bii ay toj-toj la. yuñ defoon yoo xamante ni bii tey ñoom ndam lañ koy def ca garage ba. daw naa diggante fii ak fii. ci nangami minute def naa lii ak lii ci loolu. ak njëkkante bi ñu naan diw dafa ñem dafa mën dafa def nii tànk bee lii lii ak lii ci formation boobu ci la xale bi di jóge ba muy am li nga xam ni mooy permis dafa jàpp ni. jaloore ji paawu gaaraas boobu te paa boobu deful jaloore de moo ko fi ba ñàkk def jaloore moo tax mu toog te garage ba. li muy wax ne ni muy ne noonu lay doon dawalee. mosu koo dawalee. Ah. ñaka daan dawalee ñëpp ña nga bar bàq ya ñi nga fële ñi nga fële suul nañ moom ci ñi daan dawal normal la waaye day jël jaloore yi ñafaatu toogee ko ci garage bi di ci formé booy yi. cent cent quinze kilomètres yu Touba kii bi euh, Ila Touba bi des fois nga gis ko ni la man vingt minutes laa koy daw. waaw te normal bi de mooy une heure de temps normal wala quarante cinq minutes. wala quarante cinq mais da ngay gis koo xam ne naan la vingt minutes laa koy daw. waaw gis nga ñooñu nag di wax vingt minutes. Ah, di dem ak ñëw di kii. dawuñu ko vingt minutes. Hmm. sax. léegi ce que mën gis naa loolu am ah, léegi nag ñoo ñooy sànq booy yi. Ah. comprendre nga. léegi booy yi. di fay fay. di naaw nag defe ne kii li mu wax ni bu ñëwee duñ ko léeg-léeg duñ ko daw vingt minutes naan nu kii di def ba ko di ko kii xanaa moom a gën li fekk ne dafa yokk ay wax ci dafa yokk yëf yi da ko sukkar comprendre nga noonu ñu lañ leen di forme ci garage yi léegi nag ñu war a ñëw nag ci li nga xam ni moom mooy eh, terrain bi di exécuter léegi li nga xam ne bi noonu lañ leen former loolu rek la ñuy wane ci tëli bi mm-hmm. xoolal sëfoor yi nekk ci garage ak chauffeur yi nga xamante ni ñoo nekk ci yeneen kii nga xam ne bokkuñu formation boo dajee kii léegi ci kii mën na lu couper def loo xamante ni bii ça n'a rien à ak code de la mm-hmm. bari sax xamuñu code de moo tax code science di daw ci dëkk bi. chauffeur yu bari yi ngay gis ni mooy li sa xel dal. Mm-hmm. yaa ngi nii boo ñëwee da yow priorité ngay dawee doo dawee priorité parce que xam ne boo dawee priorité léegi ñu rey la ci tëri yaa ngi dégg donc loolu mooy li nga xamante ni bii tey Sénégal ngay siñaale waaw ñu naan la doo ñaan. yaa ngi dégg waa ji ne la waa ji di la buux. nga ne mu naan waaye da nga doon ñaan. da fekk signalé nga de dafa la ko. ne nii xam lu am débat bu am. xam mooy BRT bi ak Tata yi xam na temps yi coow la. Hmm. mooy voie wu BRT bi léegi liñ Tata yi doon daw dan na leen da leen utal yeneen ligne ñu bàyyi BRT bi jël yoon bi. di bu nguur gi def woon loolu. waaw nga gis tata bu daw ba mbëkk BRT bi. Mm-hmm. non parce que formation yee bokkul. formation yi la. formation yi ñoo bokkul gis nga léegi tey pour ma wax la leen te gis pour te dire que ni formation yi bokkul demal nga jël sëfoor ci gaaraas bii nga yóbbu ko jox ko BRT xam nga lu muy wax moom ci boobu ne ñoom gars yi ñoo xam sa yaay léegi yéen bokkut leen ci léegi yaa ngi ci kii maanaam moom ci boppam day ñëw rek ne damaa war a correct responsable dama war a responsable dama am nu ma war a dawalee du ma war a nu boo leen recruter yóbbu leen dem dikk noonu la ñuy comporté woo mais il suffit que tey nga wàcceeg leen jox leen njaga njaay rek anawaa ña nga ca kii ba seekal esprit boobu tamit bokk na ci li nga xam ni accident yu bari moo ko yindi da ngay ku cëpp Dakar suba teel wala bëccëg gi waaw sa waay foo jógee nga ne waaye man ne Tiwaawan laa Tiwaawan laa file sama kaasu café léegi. wala ngaay laa ko file léegi. yooyu yooyu mooy sànq nit léegi da ngay dugg ci allo allo Dakar yi nii. fi muy fi muy fi muy génnee pour génn pour jël autoroute bi ci la lay woowee coxeur bi nekk Thiès ne ko bind ma. waa xoolal loolu maa ngi ñëw. bind ma taf taf. xam nga loolu lépp bu defee ñi nga yóbbu dañuy stressé dara xam nga aay bind ma ay hmm. ki jóge point A dem point B ci jàmm ak salaam moo moo aay kookoo maanaam jóge ba noppi teg ko ci yoon hmm. kookoo loolu mooy aay mais ñee li ñuy def Euh, du ay maanaam gis nga lu leen feresu rey nañ nañ nañ yaboon ñëpp loolu mooy problème yi nga xamante ne mooy problème bi njëkk gënoo maa xam li may gis nga ñi nga te gis nga nag bu ñu nee bërëb daal di koy jiiñ oto yi mais nit kii dawal oto bi d'abord loolu moom comportement nit gis nga tey ji li Omar wax am na tamit de muy tëli yeeg et cetera waaye gis nga bu ñu defur nit ki mm-hmm. wóor na yàlla du ñu tàgg lépp nit ki la rek il nit ki ci jëmi boppam mm-hmm. ñu jubbanti ko. defar ko ci la dem dëkk di daw. te gis nga nag nit ñooñu. te dañu ànd ak gis nga nit ñooñu sooy bu lu leen mën a jubbanti ci jamono ji mm-hmm. xam la moo leen mën a jubbanti. Mm-hmm. sanction kese moo leen mën a jubbanti. parce que dañoo tàmm lii ñu ne. mais gis nga kuñ ci sanctionné ñu yëg ni diw noonu lañ koy waxtaanee ci garage diw de nangu nañ kii am diw de ni ah léegi de moom rek mi moom nii ak nii bu boobaa ñoom ñëpp danañ jéem a tegu ci yoon jubal. Mm-hmm. waaw mais vraiment wax dëgg fa yàlla. Euh, boo gisee accident yi ni muy amee ah, da ngay xam ne lii jaaduwul quoi donc man jàpp naa ni ministre bi mi ngi ci mi ngi yóbbu parce que parce que keroog maa ngi koy dégg évoqué ne lu jëm ci loolu li nga wax nii sànq rek wax na ko daan ne xoolal dem dikk yóbbu nañ nit ñi ci émission Papa Ngagne ma la ko waxee sax ah, ah, daan yóbbu nañ nit ñi dem nañ ci jàmm déggoo benn accident te loolu état mm-hmm. mi ngi xalaat ci yëf yooyu nakam nan la ñuy def pour mën a maîtriser yëf yi parce que loolu bu ñu ko deful rek euh, yooyu la ñuy am fii ngay gis safoor bu gëmmeentu mm-hmm. ña gars yi naan waaye booy xëpp xëppal gën a ci lay gën a mën a lool <laughs> sax nga gis safoor boo xam ni nga gerte gert ak moom jël ay kiyam ba noppi di yëpp ay nit di fararari gars yi naan fii lay aayee yëpp danga koy gis xam nga li nga li ngay li ngay wax Adja ci booy tukki sax. ni ngay tiitee loolu ñëpp lay dal. te su foofu boo ci ne man mas naa di dem màggal mas naa dem màggal war a yóbbu scooter gént yoon wi. gént la naan la yoon laa ci ba set lii loolu scooter a taal lan lan mooy nga gént dafa gént yoon wi laa gént di dawal ci tëri yu xat yi sooy mm-hmm. boobu de booba laa ci génn ay mi ngi noonu ajaratu en doy na waar ajarat maa ngi la koy wax léegi su fa bu ci daw xël nga ne ko yow tee ngaa daw ndànk. mu ne la li may def gënoo ma koo xam gënoo maa maîtriser sama oto fekk yow yaa ngi tiit stressé wu tellement mais koo ci boole sax boo romb police nga wax ko rek nga boole ko ah. bu ñu may sax mu ne la wàccal sama oto wàccal dama fay. fii ba tribunal de la du ma wàcc. wàccal sama oto lañ lay wax doo ci mën dara en tout ñu ngi ñaanal. ay jaaduwul kay dafa jaaduwul. ñu ngi ñaanal ñi ci loru lay ñëpp yàlla suñu borom yërëm leen taxaaree leen. àjjana ñaanal blessé yi yàlla suñ borom taxawu leen ba ñu wér ak jàmm ajaratu di leen jox dig daje suba ak jàmm ak beneen actualité.